parce que Ibrahima ñëpp xam nañ ko mais man ko mii ne bi ñu nekkee député man ak moom ñu bokk groupe des non inscrits ma gis mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ma faloon booba jamono vice président assemblée nationale moom ci la bokk ma koy ma koy ci gërëm aussi di delluwaat di ko ci gërëm di wax ne amoon na yéene bu bare pour député yi te xam naa ne bu jotoon nekk président assemblée nationale statut député yi day day day changé waaw parce que daf ma daan wax ne boo seetee États-Unis am na ay parlementaire comme les sénateurs kenn du xalaat seen nekk sénateur bàyyi sa siège sénateur pour dem nekk ministre kenn du ko def alors mu ne dañu waroon or dañu waroon euh, organiser yëf ba nga xam ne député bu ñu woone la kaay dama nekk ministre nga au minimum nga hésité. parce que am nga statut social bu am maanaa statut politique bu am maanaa voilà liggéey nañu ensemble ci règlement intérieur assemblée nationale booba jamono te maa ngi fàttali li mu ci indi yëpp te gëm naa ne bu nekkoon bu nekkoon président assemblée nationale statut ministre statut député dina changer